<laughs> lii de xanaa moom la ñuy wax buruxlu international ñaa daal na ma ko mujj bëgg moom nee na daf ñuy forcer boppam par force nee na dañ koy bëgg par force nee na day bokk par force nee na daf ñuy serrer la main par force am nga ci droit waaye gàcce am ngeen ko képp koo xam ne waxoon na ne duma bokk ci xeex bi duma sànni xeer duma sacrifier sama life jàmm ma ñor jàpp ne yéen a nekk ci dëgg rek am ngeen gàcc ci kaw nag ba ci suuf laa wax kii nga seere loxo nii na jàkkaarloog moom xam nga ne wuute naa kanam ya nga doon jàkkaarloog nga xam ne mbumbaay moo leen ñor kii boo ko xoolee xam ne liggéeya ko tax a jóg te dañ ko yónni yàkkamti ko benn soo ñu xoolee ñun itam physiquement em et mentalement xam ne ñun on a rien contre toi mais dañoo bëgg ngeen tirer leçon que ne ñun jàmm lañu doon utal Sénégal liberté lañ doon utal Sénégal bu mu njàmm dog lañ doon utal Sénégal te comprendre ngeen ko tey ñaar bokkal par comme yow sa jom da ko ruy naan ñëwal